ah gars yi Bellingham da doon classe Kylian Mbappé coowal ñoom Bellingham ak Tchouaméni Kylian Mbappé ci vestiaire yi avant Mbappé di ñëw non li waral cool yi dinaa ci ñëw nan ak naka la ah salaam gars yi bëggee naa leen nuyu ku ci nekk seen ab tur ak seen ab sant d'abord di sàkku ci yéen ab ñaan ngeen ñaanal ma bu baax a baax damaa xaw a jagadi quoi moo tax vidéo yi temps yi xaw da bëri mu ngi noonee mais ça va quand li waral mbir moomee mooy lan kookee ñu naan ko. Tchouaméni <sighs> Camavinga ak Bellingham danoo toogoon discuté wu ñu ngi leen doon filmer nag ci noonee nag am na ko doon laajte entre Haaland ou Mbappé seen sûrement euh, Tchouaméni ma ko doon laaj kookee ñu naan ko Bellingham léegi nag euh, Tchouaméni Camavinga ñoom ñu ngi waxtaan ci noonee nag Jude Bellingham ne Haaland c'est un incroyable waaw léegi nag Tchouaméni na ko incroyable on s'en fiche waaw I don't care mu ngi noonee incroyable boobu da koo jaaxal mu ne ko on s'en fiche yoon nekku ci waaye kooku di Camavinga ne euh, Tchouaméni calme-toi tais-toi bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd noppil léegi Jude Bellingham ne mais il est meilleur que votre gars la ko Tchouaméni tontu Jude Bellingham ñëw tontu ko ne ko il est meilleur que votre gars votre gars kan la Kylian Mbappé la war a doon sûrement mu ngi noonee waaye après Tchouaméni laaj ko ne ko kan kii Bellingham wax na foofu tur sûrement Mbappé Euh, vidéo bi danoo mujjee bippi affaire bi dañ ko mujjee euh, mooy son boobu naan tëët comme nga saaga ñu ñu remplacer ko benn tëët pour nga bañ koo dégg ñëpp nee nañ Mbappé la wax waaw. nag gaawu ñoom Tchouaméni ak kookee ñu naan ko euh, comment dirais-je Camavinga te question bi au début c'était Kylian Mbappé ak kookee di Alan mu tagg Alan ne meilleur que votre gars kon kooku Kylian Mbappé la amul sikki sàkk moom moom waxin déggin la laaj te borom xeli la ñoo koy dégg mu ngi noonee mu doon mbir moo ne nii ñoom jot nañ cee waxtaan ba Tchouaméni naan ko non non toi aussi arrête arrête arrête di ko calmer na ko non non nanguwul li nga xam ne Erling eh, alaan jot na ko wax euh, Tchouaméni jot na ko wax ko kii di Kylian Mbappé en tout cas jur na coow ñëpp a ngi ciy wax naan ñaar ñi ah est-ce que bu Kylian Mbappé ñëwee du indi coow ci vestiaire bi nag euh, Bellingham actuellement dafa am lumière bu mu am foofee ca euh, Real Madrid am fa buzz boo xam ne nii. Euh, candidat la ci euh, ballon door bi di ñëw xalaat ne bu Mbappé ñëwee foofu ci Versailles mën na nëbb lumière am boobee ba tax nag mu am lu mu ko dencal ñii naan Bellingham wax na dëgg nag Alan moo moo moo mën Mbappé ñii naan Bellingham ak Alan ay xarit lañu woon Dortmund moo tax et tout lu ne ñu ngi koy dégg mais en tout cas may xaar ci commentaire nan ngeen gisee loolu ba xam ci Bellingham ngeen àndal wala Kylian Mbappé wala lan ngeen ànd maanaam ñoom ñu ànd doon benn jëmale kënëb boobee Real Madrid ca kanam kanam mu ngi noonu gars yi jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaajëf. Eh, <laughs> <laughs> aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un oubli. Daïla. Hey, le monde part en couille. Hey. Hey. Aujourd'hui aussi, c'est un oubli. Daïla. Hey, le monde part en couille. Atravessava, atravessava. aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est. Eh Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Le monde part en couille. Non Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est. Le monde part en Good. Oh, hit that ball. Oh, Good. Oh, hit that ball. ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي ابو اللي جابك على التليفون سلامة يا كابتن كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نروح ألمانيا يا كابتن محمد عمل له كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال شوية شدة ولا ايه؟ طبعا راح تقعد راح شوية طيب اقعد راح شوية انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه جيبوا منين يا عم محمد اعملوا اعملوا له عمليه اسمع اسمع ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي سليم اهم حاجه اول اللي جابك على التليفون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 كنت عايز عمليه جبتوا منين يا عم محمد؟ اعملوا اعملوا له عمليه اسمع اسمع ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي يعني ابو اللي جابك عليك يا اخوان كويس كويس الف سلامه يا كابتن لازم نروح المانيا عملنا فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شوي شده ولا ايه؟ طبعا راح تقعد راح شويه طيب اقعد راح شويه انت راح فين؟ كنت عايز عمليه جبتوا منين يا عم محمد اعملوا اعملوا له عمليه اسمع اسمع ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي انت سليم اهم حاجه ابو اللي جابك على التليفون سلامة يا كابتن كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نروح ألمانيا كابتن محمد عمل له يا كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال شوية شدة ولا ايه؟ طبعا راح تقعد راح شوية طيب اقعد راح شوية انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه بصوا منين يا عم محمد اعملوا اعملوا له عمليه Didn't have to cut me off. Did